waaw man fa la ma waroon a fekk sax <laughs> fa la ma uh-huh. mais doyen. Mhm. Euh, nañ jàpp un dossier politique se règle politiquement parce que Sénégal actuellement li ñuy dudd. Uh-huh. vraiment métti na. Euh, balaa may ñëw ci euh, caravane de la paix bu Sonko. Uh-huh. de de de la liberté du moins. yàlla dafa def le président Macky Sall dañ ko dénk réew mi ci ak maanaam kii ko jox réew mi daf ko jox ci ay loxo yu set. malgré amoon na lu ñu doon xeex euh, en 2012 mooy wàllu troisième candidature te nag euh, bu ñëwee toog début bi au moins euh, mu ngi woon ci chemin bu baax parce que ñun bokkoon na ci ñu ko dugal fii ci Parcelles Assainies Macky Sall mu amoon nag vraiment ay programme yu yu pertinent yu ñu tegoon ñu tegaloon population bi mais bu ñu demee ba ci kanam vraiment gis changement bi rapide. mais lan lan moo fi jar Macky Sall utiliser le mot je vais réduire l'opposition à, à sa plus simple expression. Hmm. loolu mooy li gën a doy waar ci loo xamante ni waroon na ko jël teg ko ci suuf. mais ñu koy wax boobu d'accord woon ngeen. ko. non c'est non dalul yoon parce que tey bu fekkoon au loolu la Ablaye Wade doon euh, fonctionner. Amadou Pène moom tey di nekk président de la République. ñu koy njëkk a wax ay seen seen allié n'est-ce pas doyen au risque de me mm-hmm. euh, euh, en bi muy nekk président. non yéen peut ñëwagula mais bi muy nekk président. mu am ñoo xam ne dañoo àndoon ak moom ci Benno Bokk Yaakaar. ils étaient d'accord parce que ñoom pour ñoom opposition bi c'était PDS. non c'est-à-dire. n'est-ce pas. au risque de me man loolu loolu laa si jàppoon. voilà léegi euh, xam naa dinaa. kon ngeen moomu leen ko. non c'est-à-dire man su dafa analyse mooy def rek xam naa. ok su fekkee waaw euh, non c'était juste pour pour apporter benn précision. ba damay dégg tout temps ñuy wax loolu mais c'était pour préciser que bi mu koy wax ñenn ci waa opposition bi. nga xam dañ koy xeexee loolu. ñoom seen waa doole bopp àndoon nañ parce que Macky Sall bi mu koy wax. Mhm. c'était pour le contre le PDS. ok léegi nag affaire a utiliser. c'est <laughs> nga tey euh, au moins bu jëloon boobu boobu moo teg ko ci suuf mu amaana peut être heure bi ak euh, projet yi ñu fi am yi ñu nekk di entame réalisation yi. Mhm. peut être loolu rek peut être mënoon na mënoon na duma ay opposants mais Sénégal dafa am culture boo xamante ni moo fi nekk te loolu boo ko ko xeex boo ko ko. Euh, mhm. xañee rek moom mu noonu ak yow wolof laay wax quoi. waaw dafa am loo xamante ni boo ko xañee Sénégalais boo ko xañee parce que Macky Sall euh, Abdoulaye Wade ba mu ko fi. sonal ba mu ko fi sonal fii. Sénégalais yëpp dañoo meroon. ñëw ñëw ci moom. parce que keroog bu opposition bi di organiser benn manifestation mooy M23 bi bañ jógee ci loolu après dafa beddi opposition bi dem defi ay tournée mu nekkoon à l'aise nekkoon ci à l'aise trop amul benn bari amul fenn fi ñu ko mën a pro euh, kiiwee. ah voilà da ko bàyyi woon mu da ko bàyyi mu nekk à l'aise di def ay nemmeeku turam ak yooyu. mais tey nag loolu la xam si ñu waaj mais dinaa jóg ci kanam c'est-à-dire euh, yàlla dafa def ñu ngi nekk ci Covid ñu ngi jóge ci Covid. waaw ah. réew mi lool entreprise yu Sénégalais yi nekk ci ay jafe-jafe bañ génnee ci loolu amaana peut-être président waroon na mën a amaat beneen discours bu bokk la toujours maintenir ne je vais réduire l'opposition à sa plus simple parce que lu fekk que mu xañ ko Karim Wade xañ ko xalifa Ababacar Sall ah Ousmane Sonko tëll na te pourtant invité na ko mu ñëw pour ñu waxtaan ci Covid bi mu jox ko de de bonnes propositions ba tey loolu appliqué wu ko parce que xam ne loolu mooy meilleure solution bi ko joxoon moo tax tey xoolal euh, li am tey ci euh, li euh, tout tout récemment li li génn. di ay di ay yoo xamante ni vraiment lu lu lu lu doy waar ci loo xamante ni tey moom la ñu utiliser suñu ay fonds Covid maanaam di pàccoo suñu alal ci période bi nga xam ne ñu ngi ñuy tëj ci couvre-feu Sénégalais yi di mer lu waral tey euh, bañ génne ci Covid bi ñu ñëw encore dajal ak guerre Ukraine bi aussi Sénégal di gën di métti waroon nañ au moins am beneen sommet bu ñu jël bu bokkul ak topp say opposants di leen toroxal di leen duma jënd ay armes di xeex ak sa askan. ndax Ousmane Sonko bi nga xamante ne tey moo am benn projet bu mu porté te projet boo xam ne ñun gëm nañu projet boobu moo mën a soppi Sénégal ñun nag ba ñu amee ci moom confiance moom i Sall bàyyi nañ ko mu nekk à l'aise di diriger mais nag mënoon na jël sommet parce que newoon newoon na pratiquement ci sommet bu baax di liggéey Sénégal te tey booy xool euh, Sénégal dafa laaj stabilité dëkk bi ñëpp xam nañu actuellement même ñoom ñii sax nekk ci pouvoir bi xam nañu tey Sénégal dañ ne ci fitna tey dëkk bi la daan dox lu bari doxatul. Sénégal actuellement nekk na réew moo xamante ni tey ñu ñëpp dañ nekk en sursis ku ci nekk yaa ngi daw di tiit. ñu ngi koy wax mu ngi koy wax boobu itam.